هدى إلهي سخسها ما ساني مسخسها وبير جهلي نزها نصى نزال ظلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي mbokk yi jàkkaarloo ñun duñu sétane jëlee ndigal nak ci Serigne Touba Cheikh Sidi El Mokhtar xalif général kullu murit yàlla nako fi sun borom yagal lol te dolli ko ak wér jaar ci Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne abdullah mom Serigne Touba khadim Rasoul wàcc ci Serigne mustapha Mbacke xasida ñëw nak ci domam ji nga xamne modi Serigne Abo Mbacke tan diko dakal Serigne Abo xasida bis bi nga xamne mom la daan def at mu jot daan ko defal mamam ju sell ja di Serigne abdullah muy journée culturel bi nga xamne at mu jot mu def ko ndakaaru ren jii nag sëriñ Abo da cee def doy waar ndax nee na bi sëriñ tubaa xaadimu rasool demee ci biiru ndar ba julli fa ñaar rakkam ya ba ko ko tubaab bi laajee daf ko ne barab bu sellee yaakaar naa ne jaamu yàlla rek la ci war a def moo tax mu xam ne barab ba gën ci lañ war a tànnal sëriñ tubaa te gis na ne bu ñu demee sa hôtel Méridien lu bari ampo lañ fay wootee ca place booba nag sëriñ tubaa yeyoo na ko ndax nee na barab boobee xalaatu fa lenn lu weesu tagg fa sëriñ tubaa xaadim rasool jàng fa alquran netli fa ay jalorem assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ñëw fi tay ci tewayu njabotuk Cheikh mohammed Lamine barki yeb bis bo xamne Serigne Abou mbake mom Serigne mustafa mom Serigne abdullah mom mo koy defal maamam bi mag ji ak mbolem njabotuk Serigne abdullah gi ngir di ci xamal kan moy jàmbaari l'islam joju kan moy di jàmbaari Cheikh ahmed Bamba khadim rasoul joju di Serigne abdullah kon. sëriñ bi mi ngi ciy woo mboolem ku aju sëriñ Cheikh Mouhamadou Lamine mi ngi ciy woo képp ku di ab jullit ndax ku nekk xamoon na li doxoon diggante sëriñ Abdullahi ak seex Mouhamadou lemin Baara ndax ku nekk umpalewut ne seex Mouhamadou lemin Baara bu fekkente ni itam moom njëkkuka jël aw tur tudde ko ko euh, ci ñi ci njëkk a jiitu ci la bokk ndax sëriñ Abdullahi mi ngi feeñ jamono ci saahir 1907 sëriñ Baara mi ngi sëriñ Abdou Baara mi ngi gane àdduna 1912 kon ku nekk xamoon na diggante Cheikh Abdullahi moom yi ak sëriñ Baara kon sëriñ bi mi ngi feddali cër boobu ak cofeel googu nga xam ne amoon na ko ci sëriñ Abdullahi di ci woo mboolem njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gi yëpp. Eh, ci kaddu gi ñu wax nak dañ ci wax ci kaddu eh, serigne sidil muxtaar te it di wax ci itam wacc ba ci ki mag ci sëti cheikh mohammed lamine bari di serigne mustapha sunu sunu mag di ci wo ñep di sante serigne abo mi nga xamne mo waral bes bi delloonu ko ñun wa dar rahman fep fu daayira nek ci aju ci keur serigne abdoulahi ñi ngi koy wo ak nu mu bokke ku ci xarit ku ci bokk ku ci àndandoo ku ci soppe ñu ngi lay woo ci bésu sëñ bii ñu bokk ko teewee ndax kat bés la boo xamante ne bii ah ñun de yaakaaru nañ ci lool ndax fii ñu ko defee day wax dëgg yàlla ah sedd na sunu xol lool ñu ngi ciy bëgg di ci sant yàlla bu baax di sant sëriñ Abo bu baax a Mbàkke woote bi sëñ Abo da cee woo kilifa yii ñuy bëgg a Je ko Abdul bassir Abdoul Khadr meilleur mi yor général de mourides sëñ Sidi Mokhtar Mbaké, yalla na fi di ci son excellence monsieur Makissal, président de la république du Sénégal ak Mme madame Mariam Faye première dame présidente fondation service du Sénégal di Mme madame Mayta Balde di maître Oumar Youm mi ministre directeur de cabinet du président de la république la. Seck président réew mi sëñ ministre de la culture et de la communication nous avons ci bis bi Touré ancien premier ministre envoyé spécial du président de la république di le chef du parti yi nekk ci président Pape Diop di njiitu bokk gis-gis di Moustapha Cissé président parlement CEDEAO vice président de l'Assemblée nationale du Sénégal di si woo euh, Ibrahim directeur général de la SICAP di si Cheikh Amar directeur général du TSE di si Cheikh Kanté directeur général bu port otonom de Dakar di si woo Galoba directeur général bu Sojib di si woo maire Touba di sëriñ Abdoulahat ak maire Mbacke sëñ Abdoul Mbacke Ndaw mu ngi leen di woo ñoom ñëpp ci bis bi. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ngi leen di nuyu ci tuuru sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke di sëriñ Cheikh Darou Rahman di xalifatu Cheikh Abdallah sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu moom ak njabootu Cheikh Abdoulahi gépp cheikh Mohamadul Habib ak cheikh Mohamadou Moustapha Xasaayit ngir bis bu am solo boo xam ne bisu culturel lañ koy wax boo xam ne Serigne Abo Xasaayit ibnu cheikh Moustapha moo ko di coordonné daan ko amal nag at mu jot ren ji nag mu am soppiku gu ci am waaye lépp dafay lu jëm kanam mu tuddee ko nag Cheikh Mouhamadou Lamine Baara te sëriñ Abdou Latif ñëw na ci léegi ci loo xam ne rek luy firndeel la ne seen diggante yàgg na muy Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ak Cheikh Abdoulah muy sëriñ Baara moomu nga xam ne na ko sëriñ Abdou waxe sëriñ bi nag nee na mi ngi ciy woo ñëpp li tax nag mooy dañoo toll ci jamono joo xam ne dañuy wër référence am nañ ko naxam waaye nag li tax ñuy mën a taxawaat bis mel nii te di ko war a def mooy ginnaaw ñooñu la fi matoon a def def nañ ko lu matoon a taxawe taxawe nañ ko jaadu na nag ñu jàngataat seen dund ga jàngataat seen yarin wa jàngataat seen sopp ga Serigne Touba ak melokaan ya nga xam ne amoon nañ ko ci jamono ju ndax ji kon loolu nee na mi ngi ci woo ñëpp di ci woo mbokk yépp ci ndigalul cheikh seydil maxtaar di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér kon nee na mi ngi ci woo ñëpp bàyyiwut kenn di xam ne bis bii moom ànd na ci moo koy woote ku fa ñëw ku nekk moom la fa ñëwal nee mi ngi woote ci turu kër cheikh abdoulahi waaye di woote waatit ba tey ci turu kër cheikh mamadou lamine baara jërëjëf Sering seexu naa ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne ku ko dégg dana sering ne sëriñ seex moom sëriñ abdullahi ci ni mu ko faral di waxee ci discours am yépp ku muy waxal ku ne dana la xamal ne doomi sëriñ tubaa yépp kenn lañ bu leen fa mukk abdullahi di ko teg ci jenn doomi sëriñ tubaa ndax sering bokk sëriñ rasul kon yaakaar naa ne kàddu yooyu ku ko dégg da nga xam ne ci kon bis baa ngi noonu yi ñaar fukki fan ak ñaar ci bis bi xam ngeen ne li mu feeñee jamono rek way juróom mu sell wa diggam ak sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Soxay bi ñëpp xamoon na moo taxoon mu fab sëriñ Abo jébbal ko sëriñ Amsatu borom xaside yi borom bone yi moom sëriñ Soxay bi nga moo ko jàngal moo ko yar moo tax sëriñ Abo nee na li ngi ci li ngay woote nag moom ci turu boppam turu ko njabootu sëriñ Amsatu gépp lay woo ak fu daayira xasida mën a nekk boo xam ne rek sëriñ Amsatu la yërif mi lay xamal ne bis boobu moom yow ñoo ko boobu waaye xam ngeen ne ku tudd kër ndey wala ku na kër ñoo njëkk jox seen bopp Serigne Touba Xaadimu Rasuul di waa kër Serigne Adama Gueye kon nee na bàyyiwul benn buntu kër ci njabootu Serigne Adama Gueye gépp mi ngi leen di woo ci woo nag seex yi Serigne yi benn seex bàyyiwul benn buntu kër ndax ñu ko defal kenn ku ci am na loo àndaaleel seex yi Serigne Touba yi Cheikh Mahamadou Lamine Bara keroog ba mu feeñee adduna fii ci jumaay Touba ji Serigne Touba daf na ñi doon wut yàlla seen gan gi na seen ngërëmul yàlla kenn natta bi wut ne Cheikh Abdoulahi keroog ba Serigne Touba jógee gànnaar jëm ci yéen Jolof dana woon gëleen gi nga xam ne ci la soxla si nekk bu ko aw naaj tiim ba ba muy àgg ci yéen ba mu feeñee jamono daf ne ne lu ñu rëgu ngërëmul yàlla den ngi indaale na seen ngërëmul yàlla kon ñaari ngërëmul yàlla yooyu tax na képp koo xam ne mbooloo topp na ci sa ginnaaw ki sëñ Tuubaa tax mu topp sa ginnaaw rek ñu ngi lay woo ci bis boobu ndax am nga ci wàll